waa famille Baye bokk ci Gémul sama waa famille Ndeye bokk ci Gabriel Ngandek loolu nag ñun suñu askan ci Medinatul yoon xam ne Yonent bi alayhi salaatu wa ak Serigne nga xam ne moom El Hadj Malick Serigne Ndongo Diop bokk na si mag ñi njëkk a jébbalu Serigne Touba. moo jur sama euh, bi ñu wax bi ko waral mooy man je suis né à Thiès j'ai grandi à Thiès fa sama lépp fa laa juddoo fa laa lépp. ginnaaw bi ma jógee ci daara ji comme ni ma ko waxee sànq yàlla nag euh, yi fa nekkoon ak mbokk yàlla def di ma am fa ay taalibe am fa ay daayira di di organiser ay cant yu ma ne naa utiliser le mot borom bi ma ko waxee yàlla ànd ma waxee suñu borom da koy da koy da koy nga am ndam comme ni ko di faral di waxee waaye souvent su ma bëggee dara yàlla da koy bi ma nee borom Thiès rek. bëgg-bëgg boobu ànd mu dem di dem di dem di ba law loolu nag dama si ci sant yàlla ndax bari ay président yoo xamante ne ay ministre ak ay kilifa diine yoo xamante ne jaar nañ Cees kenn mosu leen a dàkkante rek bu baa bu leen dàkkante rek boobu man may ki njëkk dem ci média boo duggee ci Google wala nga dugg ci man na ci njëkk gis yeneen ñi si des yëpp bu la neexee nag man mënoo ñëwaat ne borom Cees waaye ay ndam defal ko man ma koy bind di ma ko defal ci télé mag boobu ay 97 98 la woon jamonoy nouveau projet loolu yàgg na du tey moo waral élection présidentielle allah euh, lépp jaar na ci yoon ndax euh, ni ko nit ñi doon xalaatee ne danañ euh, ànd ci xuloo ànd ci xeer lépp def nañ ko si jàmm génn si ak jàmm waaw dëgg yàlla am kilifa diine yi fi nekk ñu kilifa diine yëpp wax dëgg yàlla ñaan nañ ci def nañ ci ay waxtaan ba lépp tegu na ci yoon am na si jom borom bi nga xamante ne moom la dara tawul nag yëkkati na ndam fekk euh, président Macky Sall ñu ñaan ko yàlla na àggale mandat bi bi nga defee keneen ku mën a ñëw Covid ñu ko mën a jàppale rek waaye jàll na si jàmm wax dëgg yàlla naka noonu suñu borom bi am may na ndam journée culturelle Darmanko bi alhamdulilah yàlla def na ne jàll na si jàmm maanaam ci njëkk a woote une journée culturelle Darmanko ci askan bi féetale ko Darmanko su ma nekkoon féetale ko sëñ Aliou Amar sama wàll su ma nekkoon féetale ko sëñ Mango wala sëñ Paate waaye dama jël askanu Darmanko ne une journée culturelle Darmanko journée bi nag bu bu bu jotee ñin ci rendre ci biir askan bi lay doon ñin ci parrainé tamit ci biir askan bi lay waaye koo xamante ne day mbokk ak yow lépp bi bi suñu borom def na ñu ngi ci ñu ngi ci ñu ngi ci jàpp ànd ci ak ñu mat a ànd ni parce que nag vraiment bu ñëwee tamit ñu waxtaan ci ak membre gouvernement ku ci Omar Diouf yëgal ko ñi nga xamante ne moom mooy conseiller président Macky Sall ñu di ko wax Cheikh Macky Sall ñoom ñëpp dañ koy yëgal ba ci Maodo Malick Mbaye nga xamante ne mooy président anamo nekk Thiès ak Talla Sylla ñoom ñëpp dañ leen yëgal bis bu journée culturelle bi jaar na yoon lool macha allah ndax ñun ko tuddeewul euh, taxawu nañ ci taxawaay bu am solo parfaitement la wax ni nit ñi kenn xëyut mais nit ñi taala si taxaw na ci nam fu war a taxawee askan bépp ànd nañ ci waaw xam nga man souvent dañ may faral di dégg bu wax jotee ma wax bu noppi jotee ma noppi loolu loolu moom yàlla moo bëgg loolu moo ko bëgg koo xam ne bu wax jotee bu wax bu jotee comme nekk ci réew mi di di sëriñ sama bàyyi sëriñ Cheikh Cheikh ma am ay di génn di dem ci de côté de fu ne ma nekk du euh, ma seetaan nag loo xamante ne dañuy yàq kii bi donc di ngeen ma gis ci série dégg nga ma ci série na fii dégg ngeen ma ci série comment dirais je euh, l'homme marié je sais pas maîtresse ma ci yeneen ak yeneen dox lu nu wax lu yemuñu rek ci ci ci ci série bi rek ba ci football beeg lu mu mën a doon par comme nag dañu chef religieux yoo xamante ni dañuy dox ci àdduna di dox fenn fu ci ne xam na li nga xamante ni moom la ñuy ak askan moo tax nit ñi loolu loolu waaw passeport diplomate yi man président li ñuy wax ni daf ko daf ko téye euh, man loolu yaakaar naa ñaawlu ma man daal ñaawlu ma ko parce que soo xoolee ci man mii nga xamante ni yoruma passeport diplomatique te alhamdulilah bi may commencé génn di voyage yi boobu du tey je me rappelle 96 97 loolu loolu yaakaar naa passeport diplomatique mel ni woon nii te boobu commencé naa génn. mën naa wax ni wax dëgg yàlla ngir ma passeport diplomatique a dem ci àdduna yàlla ma fee dimbali ngi seet taalibe yi di leen di leen nekkee di waxtaan ak ñoom ñi nga xamante ne mënuma egg si ñoom it nekk de wax ak ñoom à travers réseaux sociaux comme ni ma doon jàppale le di ko jàppale ñeneen maa wax ak di waxtaan ak ñoom parce que à travers réseaux sociaux ñaan bi damay ñaax nguur nguur gi rek mooy ñu ñu wax ak ambassade di xamal sëriñ si ñooy ñan xamal chef religieux ñooy ñan ba bu mënee dem ñaan visa ñu may leen visa mais pourquoi pas mënu ñu mën a may un chef religieux bu def lan moo tax ñu koy xam sëriñ si di ko may fecckat yi di ko may sabarkat yi di ko may ñeneen ak ñeneen boo xamante ni sëriñ si ñoo leen gëlee kon nan dem visa ñi nga xamante ni ñooy may visa dañuy yombal sëriñ si dina ko yombal ñooñu demuñu pour ñoom day def pour ñoom loolu bu ko doon am yaakaar naa seen xel sax nekk ci parce

nga xamante ni dafay nañ ko fu ne di def ay appel di wane seen journée seen bopp bi ma ko wootee ak dimanche dama mbooloo ma dafa fees dellu comme ma seen fay donc ma di leen sargal am si ñoo xamante ne nag war naa leen mën a jox cadeau war naa leen mën a jox ay cadeau ku ci mel ni sama frère la Serigne Mbacke Amar war naa leen sargal di leen pourquoi ma di ko defee Touba li ko journée bi dama koy def une journée di ci remercier waale askan bi waaye di ci remercier waale tamit le président nga xamante ni liggéey na ñi nga xamante ni ñoom ñoo bokk ak moom di liggéey fii ku ci mel ni Cheikh Mbacke Modou Mbacke na xamante ni looloo waral ma indi ko fii Touba pour remercier ci li mu def ci askan wi murit def ko ci ci ci ci Touba loo waral ñu def ko def ko fii ci Touba rek loolu rek remercié nañ ci sax xam nga ni naa mari <laughs> boo mën a ñàkk kilifa kay kilifa kay day mat kilifa waaw maa ngi naan da nga war a laaj ndax da am ñaareel am déet bu ko defee boo ma ne da am ñaareel ba ñetteel ak ñeenteel bu ko defee ma mën la cee <laughs> waaw waaw sama plat préféré man xam naa ku bëgg ku bëgg suppu kànja la suppu kànja moom dama ko bëgg lool lool lool boo ci defee si tax ba ñu ma aussi tamit li ñuy wax dëxëñ bu saf-saf boo xamante ni daanaka la ca lépp nekk ginaar tamit bu amee salade bari ay firit danaa ko bëgg boo ko ba mu saf boole ci genn salade yi loolu danaa ko bëgg waaye yaasa tamit bariwul loolu daal xam naa yooyu bëgg naa euh, lañ sant ñi nga xamante ni murid-murid eh, info ñoom ñëpp ñu leen di bàyyi xel di leen ñaan it ngeen ngeen commentaire eh, parce que xam ni bari waat ñoo ni dañuy ànd fii ci ñu leen di sàkku ngeen def seen commentaire def seen xalaat ndax eh, luñ commentaire ul ndax ko ñu ngi sàkku ci yéen ñëpp ngeen ngeen commentaire ak ni ngeen xamante ni ngeen ko di ñaan ci réew mi jàmm di ñaanal mu président mu am ndam ba ndax ndamul président mooy sunu mooy mooy sunu ndam quoi donc ñu leen di invité tamit ci journée merci di sampingnya di digeremik wortel